fi ñu ci suñu mouvement bi nga xamanteni ni moy procédure bi nga xamanteni ni lañ am tamé won depuis trois mois de cela ñu defoon fi port des brassards rouges defoon fi conférence de presse defoon fi ay déclaration yu bari pour yëgal citoyens sénégalais yi ak liggéeykat yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci seen o ñun li ñuy dund ci biir kër gi et ci loolu ñu nekkoon ci ay négociation ak suñu direction général ñu doon waxtaan ci nu ñuy fexe ba ñoŋal kër gi ci yokkum payeeru liggéeykat yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci seen o te lu fi am lu ne ñoom ñoo ko liggéey ba mu naat ñu waxtaan ak ñoom ci ay jotaay yu bari ci direction du travail bi ñu demee foofu ñu ñàkk am déggoo ci suñu biir ci li tax ñu yóbbuween leen foofu mais yàlla def na juboo amul foofu ci suñu diggante ak ñoom ñu dugal suñu préavis de grève tey buy wane suñu dogoo ak direction générale ci ñàkk a déggoo googu li ci topp ñu koy waxtaanee mooy forfaiture bi nga xamante ni moom moo fi am te direction général di ko doxal ci kaw liggéeykat yi surtout nag ci délégué yi nga xamante ni ñoom ñoo représenté la personnel ci noot gi ñu leen di noot ci seen liggéey ñu mën ko def ci anam gi mu gën a sellee ak anam gi mu gën a nekkee ci yoon. ak li nga xamante ni ñu ngi koy def ci euh, mu euh, nit yu ñuy recruter fii ci biir personnel bi ci ci entreprise bi te mu doon nit yoo xamante ni ay étranger lañ ñu jëlee leen fële ay expat expatriés yoo xam ne dañ leen jëlee à l'étranger favoriser leen ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii di liggéey ci kër gi ba kër gi naat bi ci topp muy li nga xamante ni ñu ngi koy wax. mooy cotation de poste yu ñu doon wax yi nga xamante ni ñi fi nekk di fi liggéey ay at te war a mën a avancé ci lépp war a mën a am ay avantages ci lépp ñu xañ leen ko ngir jox ko ñooñu nga xamante ni dañ fi ñëw bees jox leen ci ay avantages yoo xamante ni yu jégg dayoo la te ñun ñëpp xam nañ ni loolu teguwul ci yoon benn bi ci topp te ñu mujjantal ko mooy li nga xamante ni dañ ko waroon a eggali. te nekk loo xamante ni suñu mbooloo la ñun intersyndical taxaw ci liggéey ak défendre li nga xamante ni mooy intérêt liggéeykat yi nekk seen o di interpeller le président de la république di interpeller le ministre Serigne mbay Thiam que ñun li ñuy laaj di ko wut ci askan wi di ko wut ci bërëbu liggéeyukaat bi ci suñu akala ak suñu yelef et di leen woo it ci ñu taxaw temm ba mën a fexe saafara li nga xamante ni mooy suñu mbëbët ñun liggéeykat yi nekk ci entreprise bi di fi xëy guddi ak bëccëg suba ak ngoon ba yóbbu kër gi fi mu toll nii et di lancer aussi un appel que ni suñu préavis bi ñu dugal 30 jours la te bu jeexee incha rabbi lépp loo xamante ni lu ciy am la nañu xam ni ñoom ñëpp ay responsable lañ ci loolu parce que waxtaan nañu du benn du ñaar woote nañu ci ay fu nekk pour waxtaan pour jéem a xool nu ñuy trouver solution mais munuñu fexe ba am solution ci loolu léegi nag prévoir nañ def assemblée général semaine prochaine pour woo suñu mbokk liggéeykat yi ñu ñëw wax ñu ñoom lan lañ bëgg ak lan mooy seen mbëbët ci fi ñu toll ci suñu activité yi loolu daal lañu xamoon ni mooy déclaration boo xam bëggoon nañ ko def tey pour ñaax liggéeykat yi ñaax bépp doomu Sénégal bu yeewoo Sénégal nga xam ni liggéeykat yi nekk seen o ñi ngi ci guuta ñi ngi ci ay jafe-jafe yoo xamante ni fa mu jëm baaxul te buñ ci jógul dina àgg foo xamante ni du neex kenn maa ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf